xayru ma batna wa dahra xayru maadin wa xayra aati wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaar alazim yaa himmata cheikh uxduri lana bi hada almaxdari waltaatafi binazratin taati lana bidafari wa baad أيها المشاهدون الأكارم حيثما كانوا نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñuy seetaan fii ci la chaîne Equivox TV ci loolu nag tey ci ñëw ñu ñëw ci li nga xamante ne daanaka mun naa ne moo gën a soxal nit ñi mooy wàllum alal wàllum koom-koom ndax jamono ji dafa nekk jamono bu metti bi nga xamante ne képp ko amul loo fàggul sa bopp ci alal rek daanaka société bi nañ la war a joxe cër day des ak noo munti mel daanaka léegi nit ñi alal sax lañ gën a jox gëdd borom alal la gën a jox gëdd sax ko borom xam-xam te waru te waru woon demee noonu waaye nag jamono moo ni mel te wali yàlla bu màgg Cheikhu Tidiane waxoon na ne bi sayri zamani kasir nee na ni sa jamono di doxee rek na doxee noonu nga gannaaw jamono ji nag jamonoy fàggu alal la donc war na ci ñun ñu jox nit ñi ay njëriñ yi nga xamante ne dana bàyyeekoo ci alxuraan ak sunna nga xamante ne képp ku ko def rek doo ñee sa benn moroom ci wàllum alal ci loolu tey ñu ñëw indil leen njëriñ bu njëkk ci wàll woowu mooy suratul waaqia suratul waaqia képp kuy boroom xam-xam wala ngay jàngkat xam nga ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne mooy saar bi may alal xadis bi yonent bi mu ngi ciy wax ne man qaraa suratul waaqiatu fi kulli laylatin lam tasibhu faqata abadan ayul faqr mu ne képp koo xamante ne jàng nga suratul waaqiatu ci guddi gu jot rek ñàkk du la lor donc indi na point de départ ci nan la ñuy jëfandikoo saar boobu ci wàllum wërsëg waaye comme ni ma leen koy waxee rek maanaam borom xam-xam yi ñoom lef bi yonent bi tracé dañ ciy xuus ba génnee ci yeneen njëriñ ndax suratul waaqia ci fànn bi nga xamante ne day indi wërsëg euh, ñëw na ci ci xadis boo xamante ne Abu Hurayra moo ko wala ci moom la génnee kàddu yooyu même bu dul xadis mun nañ ko tuddee athar mooy ay wax yoo xamante ne jóge na ci làmmiñu saxaaba abu hurayra ñëpp xamoon na ne ñëpp xamoon nañ ne mooy saxaaba bi nga xamante ne ci dund yonent bi mu ëppul mu mokkal ci xadis moom waxoon na ne eh, mosoon nañ ko eh, wax ne abu hurayra yow am nga alal waaye booy génn àdduna ana lan ngay bàyyee sa doom parce que moom laata moo génn àdduna dafa jël ay mboolee mi alalam mu maye ko ñu ne ko waaye yow lan ngay bàyyee sa doom yi mun leen bàyyi naa leen ak suratul waaqia ndax yonent bi moo ne képp ku koy jàng doo ñàkk loolu muy beneen firnde bi nga xamante ne dafay dëggal wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ñu indil leen ci ay njëriñ yi nga xamante ne képp ku ko def amul demal amul maa ngi ñëw da ngay am wërsëg ci kenn du ci mun dara te wërsëg bu lew lay doon ndax ñu fàttaliku ne bépp wërsëg boo xamante ne nit ki fàggu na ko te lawul rek loolu daanaka mbugal rek la koy jur amul benn njëriñ te yonent bi wax na ne ittaqullaha wa ajmilu fi talab na ngeen ragal yàlla te rafetal utin wi ndax utin bu rafetee rek maanaam lekk bi dana teey ay jaamu yàlla dana yomb te ngërmande yàlla tamit moo ci topp ci loolu ñu indil leen képp koo xamante ne eh, bugg na yàlla yombal ko wàllum wërsëgam na def guddi gi jot muy jàng juróom-ñaari suratul waaqiya bu jàppee ba sell nga xamante ne dara desul lu dul tëdd mu jàng juróom-ñaari suratul waaqiya bu xëyee bu xëyee suba tamit maanaam guddi gi dama juum bu guddi gi mu jàng juróom-ñaari suratul waaqiya laata mu tëdd waaye bu xëyee mu toftalaat ci juróom-ñaari yeneen suratul waaqiya boo ko defee boo boolee ñaari lim yooyu muy 14 suratul waaqiya te 14 ñëpp xam nañ ne dafay jàpp tur yàlla bu ñuy wax wahaabu te wahaabu mooy kii maye te ñëpp dañoo sàkku yàlla may leen wërsëg donc loolu muy sirru boo xamante ne sirru mujarrabun saxiixun maanaam c'est testé et approuvé képp koo xamante ne def na ko rek incha allahu wërsëg dina la yomb léegi ñu tal ci beneen euh, sirru boo xamante ne bii ci wàllum càngat la képp koo xamante ne mun na ko bind wala mu mun koo bindul rek bu ko defee incha allah dana gis njëriñ bi mooy dañ lay bindal suratul waaqiatu juróom-ñaari yoon waaye baada kulli ayatin da ngay bind ñetti tur yàlla yi may wax allahu jaamiu razaqu allahu jaamiu razaqu mu ngi tekki allahu yàlla jaamiu mooy dajale wërsëg léegi da bind isa waqaat alwaqia nga def allahu jaamiu razaqu laysa li waqaatiha kaadiba allahu jaamiu razaq nga koy def noonu di ko toftale ba saar bi jeex waaye dangay ngay baamu kéefiyaat boobu juróom-ñaari yoon boo ko bindee juróom yoon ba mu sotti nga ut ci xaalis lu tolloog soixante dix mille franc soixante dix mille franc ngay def ci biir saafara si bu fekkee amoo soixante dix mille franc nga def ci billet yoo am mais billet lañ ciy def kenn du ci def weccet boo ko ci defee euh, nga def ci xorom def ci suukar def ci lem yaa ngi dégg def ci parfum bu neex waaye parfum bu amul alcool parfum bu amul alcool moo xam misk moo xam zafaraan nga defaale ci zamzam incha allahu saafara si képp koo xamante ni yaa ngi koy sangoo xawma lan mooy doon sa problème waaye ñàkk du si bokk mukk incha allahu taala maa ngi jéggalu sax ci li mu koy joxe ndax sëriñ yi daanaka yu mel ni dañ koy nëbb waaye jamono ji dafa toll ci métit bi nga xamante ne il faut que yenn njëriñ yi mu génn ci loolu xanaa ñu jeexale maanaam euh, kayfiyaat bu mujj bi pour ñi nga xamante ne dañu bëgg ubbeeku boo xamante ne ubbeeku bu gaaw la maanaam ut ku fatihatu juróom-ñaar juróom-ñaar fukk mooy soixante-dix fois da ngay bind fatiha soixante-dix fois bind alam nashrah soixante-dix fois boo paree nga def ko saafara di ko sangoo pendant juróom-ñaari yoon waaye boo ko defee saafara guddi gu jot da ngay zikkar fatiha soixante-dix bëccëg bu jot nga zikkar alam nashrah soixante-dix kéefiyaat boobu noonu lañ koy liggéey lii tamit képp ku ko def di nga gis ne di nga am wërsëg te doo sonn te bépp domaine boo xamante ni yaa ngi ci rek yàlla dina ko barkeel xanaa rek ñu yemali foofu émission bi ba beneen yoon incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf <laughs> ah, <laughs> ah non damay rek <laughs>